askanu saam boxatul mubarak yëkkati seen kàddu di ñaawlu ni nga xam ne noonu lañu ñu amale séddale dund gi ci seen biir quartier bi bi ñu gis ne séddale bukki dëgg la ndax ñu ci bëri ci askan wi nga xam ne ni ñoom ñoo ko yelloo gisuñu ko benn yoon ab jotaay lañ ci amaloon ak way taskatu xibaar yi ñenn ci askan wi lii lañ ci jot a fésal ci ay kàddu dañoo woote woon fii tey ngir dénoncer li nga xamante ne moom moo xew ci séddaleem ceeb bi fii ci Touba boxatul mubarak ndax euh, ñun suñu taxawaay fii en tant que responsable des jeunes ñu gis ne séddaleem ceeb bi fii ni ko commission bi liggéeyee dafa baaxut non seulement baaxul waaye dañ ci def euh, séddale boo xamante ni bii bukki bii njuur bii sàmba te loolu bokkut ak li nga xamante ni mooy bëgg-bëgg président rawatina kilifa yi nga xamante ni ñoom ñoo fi joxe ceeb bi ngir ñu war koo séddale ñi nga xamante ñoo ko yelloo te nekk askan wi te yaakaar naa ne li nga xamante ni moom mooy bëgg-bëgg président ba muy wax waxul ne nañ jox kii bàyyi kii dañu wax ne nañu jox ñi nga xam ne ñoo yelloo ceeb bi te duñu kenn ku dul sénégalais joxu ko ay guinéen joxu ko ay gabonais joxu ko ay marocain ay sénégalais la ko jox rawatina waa dëkk bi di doomi dëkk bi loolu nag bi ñu xoolee ne doxalin yu jaarul yoon ci lañu wootee ngir ñu leeral ko ndax gis nañ ci commission bi nga xam ne ñoo doon séddale ceeb bi sax niñ ko doon séddale baaxul ndax am na ci ñoo xamante sax far dañ fee nekk doon jël ay par saako di ko ay nit te ñi nga xam ne dañ koo yelloo nekk fii te joxuñu leen ko tey boo gisee askan wi boo gisee askan wi tey seen taxawaay bépp li ko sabab loolu bokk na ci ndax euh, sëriñ bi bu fekkee ne dañu wax ne chef de quartier bu nekk wala quartier bu nekk ñu dugal fa vingt huit personnes ci biir vingt huit personnes yooyu daanaka mën naa wax ne commission ba nga xam ne ñoo fa taxaw ñoom ñooy njëkk a séddu dèjà soog a xool ñeneen mais vingt huit personnes vingt huit personnes boo ci jëlee six personnes wala huit personnes di bureau di commission boobu xam ne ñoo war a saytu liggéeyu quartier ba mais huit personnes bu ñu séddoo si vingt huit personnes ñaataa ci des tey délégué quartier bu ñu nekk dañ la wax ne la taxawal ab commission ci sa quartier ba nga dëkk léegi nag boo ko taxawalee ba noppi nag au lieu nga jox ceeb bi ña ko yelloo déedéet da koy séddu ñoom seen biir ba pare soo ko xool ñeneen te sëriñ bi ñu les majeure partie ñu ngi nii taxaw amul ci xaaj bi ñoo xam ne jot nañ ci ceeb bi te ay màggat ay mag ay jeunes ñoo xamante ne ay góor ñoo xam ne ay màggat lañ mënuñoo dawal seen bopp ab dépense te ba di teg di teg gën a taxawal mooy ñi nga xamante dañ koo ndax kenn ku ci nekk xam na ne bi Covid 19 bi duggee ci réew mi ak léegi métti na méttiwaay boo xam ne ci borom kër yi métti na méttiwaay boo xam ne ci jigéen ñi nga xam ne ñooy daw ay dépense dama sonn ba ñëw fii di xaar xaaru ceeb bi di xaar ceeb bi ba sonn ñu naan Macky Sall lay dimbali néew di doole yi man nag maay bokk si néew di doole yi si biir a biir parce que bi sama borom kër dafa gaañu te ma xëy di fóoti xam ngeen fóot daa métti fóot du métti te fóot bi ma jàpp nii di si fóot sama gone yee tax maa ngi yor doom ju am juróomi juróomi at xam ga kooku mënul dara si boppam ak beneen doom ju yor juróom ak beneen doom bu yor fukki at xam nga kooku mënul boppam seddali ceeb bi moo ma indi nag damay wax sama soxla dégg nga seddale bi moom ñun am nañ chef de quartier waaye gisuñu chef de quartier bind nañ te gisuñu ko nag dégguñu ko léegi nag ñu toog ba léegi ma ne naa ñëw tey waaye man bi seet may xëy ma ne naa ñëw tey njaboot njabootu toog tey maa ngi ni wàcc sama soxla ñëw fii yendu ah wóorul de wóorul. waaw wóorul nag moom waaw. ceeb bu weesoo seen jafe-jafe ci wàll dund waa saam itam di jànkooteel jafe-jafe yeneen ñu gën a metti mu di aw yoon ak itam éclairage public boo xam ne ni dana gën a mën a yokk lii di kaaraange ci biir dëkk ba ba tax na ñuy sàkku ci kilifa yi ñu gersu leen ci. ci lancer un appel son excellence monsieur Macky Sall ndax euh, mooy ki nga xam ne mooy njiitu réew moom lañ sañ ñaan moom lañ sañ a wax moom lañ sañ sant liñ koy ñaan di ko sant mooy village bii di mu Moubarak kenn ku si ne xam ne problème mu éclairage public yaatu na fi te yu mel ne nawet bu demee nii ak problème sécurité bu ñu bu amee ci dëkk problème mu euh, électricité bi si la bokk ba tax na ñun dañuy lancer un appel autorités yi ngir lampe led yi nga xamante indi nañ ko fi li laay war a sori nañ ci dimbale Boukhatoul Moubarak bu ko defee leerage leeration boobu bu amee jombul dootuñu jàmbat affaire euh, insécurité di ñaan ki nga xamante ni mooy xalif général de Mouride Serigne Mountakha Mbacké moom mi nga xam mooy borom dëkk bi ñu ay taalibeem ay ndawam yi ko fi nekkal ku ci mel ne Serigne Bass ñoo ngi koy tàllal di ko ñaan dëkk bii di Boukhatoul Moubarak nañu dimbale ci aw yoon fi jëm si sonn nañ ci aw yoon bu nawet ñëwee mhm. bi ci topp mooy ak lëndëm sonal na leen te ay jigéen ay ndaw ay màggat ñoo fi nekk kon nañu dimbale làmp yi ñuy installé ci dëkk bi genn gënu fenn gënu koo yellu dëkk bi te comme yàlla def na du ay fiil yu ñuy lonkalante ay panneaux solaires la yoo xamante ni moo ko war a doxal nañ ko samp fii mbedd mu leen neex mën ko fa samp kon ñu ngi leen ñaan ñu ñëw sampal ñu ko fi ay ba moom ku nekk xam na ne moom am na jafe-jafe surtout saam ndax saam ku ne xam na ne ay sancaan lan te pour diggante Madiyana ak saam ndox mi bari na pour nga jógee saam dem na lu metti la loolu nag état lañ koy jooy ndax état moo nu war a dimbali teet bi Abdoulaat Ka xañ na xamul fii waaw na fi Abdoulaat Ka gëj na ci bi ñuy bi muy bi ñu ko joxee Euh, hôpital bi sance bi far mu ñëw xool ko xañ na arrangé wu ko mu delloo ko boobu la fi Abdoulaye ka gëjoon a teg tànkam waaw kon xamul li fi saam ku ne xam na ne sancaan la muy dund métti na premièrement mi ngi nekk ci tali ndax ku ne xam na ne nawet nga bëgg a ñëw saam lu métti la ndax taataa yi bari na lëndëm gi métti na agresseurs yi bari na fi kon loolu moom ci jafe-jafe yi waa sancaan yi la bokk monsieur le maire Abdoulaye Kharka amul benn mbir moo xam ne gis nañ ko mu jugee ci mairie bi jëm ci si village bi ñu ne mairie bi moo fi indi wala moo fi def kon ñu koy waxin moom it comme yàlla def na moom lañ teg ci bopp dëkk bi ñu ngi koy ñaan di ko sant mu ñëw defal ñu fii aw yoon wu fi mën a jëm ci te ndax moom moo am possibilité demander état ngir ñu defal ñu ko fi ndax te tali kenn ku ne xam ne état rek moo ko fi mën def mais lamp yi nga xamante ni ñoo gis nañ ne ñoom ñu waa mairie ñu ngi ko fiy samp ci dëkk bi ñoom am nañ possibilité ko ci village bi waaw ndawi saam nag di ñaan ci kilifa yi ñu gën leen a taxaw ci ay projet ak ay activités yoo xam ne dañ ci mën di yëngatu ñaalu nañ tam ay projet yu bëri yoo xam ne ni dañ ko fay faral dugal waaye lu ci bëri du am ak mujj suñu plan d'action mooy comme ay taalibe Serigne Touba lañ dëkk bi kenn ku ne xam na li fi ne duñu mars duñu toj xeer duñu lakki puno dañuy ànd ak population bi nank jël suñu addiya boole kooku jooy jëmale ci sëriñ bi nga xamante ni mooy xalifa général de Mouride ngir jooytu ko nga xamante ni ñoom la sëriñ bi teg liggéey bi seen loxo wala ñoom la euh, préfet ak sous préfet dénk liggéey bi li leen di wax mooy nañu fexee jàppale askan wi bu ëllëgatee ndax lii mën nañu wax ne bay woy na mbuus mais bay woy na mbuus ndax tey bu fekkee dañoo dëkk ci di lépp lu ñuy dugal ci village bi ñu ñëw séddale ko nu mu leen neexee jàpp ne umul xuraa ay nit ñu xamul daal ñoo fi nekk wala ay xar ñoo fi nekk déedéet te pas la fois lii du tey du benn yoon du ñaari yoon ndax yàgg na am ay projet sax yuy dugg umul xuraa ñu di ko détourné di ko jaale fu ne wala di ko defee neneen kon dafa jot ñi nga xamante ni ñoom la sëriñ bi dénk liggéey bi ma leen di wax ne leen nañ ñu jàppale ba li nga xamante ni mooy bëgg-bëgg askan wi fii si dëkk bii nañu si taxaw lu ñu mën ndax sonn nañ xanaa rek di sant population bi ndax yàgg nañoo taxaw ci lépp lu leen naqari te mënuñu ko wax wala mënuñu ko jot waaye comme yàlla defe na ne ñun nekk ay jeunes yoo xamante ni dara ñëruñu nag lu dul jooyal suñu askan doxal leen xulool leen xeexal leen bu ko jaree waxal leen ba suñu kàddu fu mu mën a yem lépp lu mu laaj pare nañ pour assumer suñu responsabilité ndax ñoo pour jàppale askan wi Saam bu mu Mubarak di ab quartier bu nekk fii ci Jannatul Mahwa di faral di nag di jul di faral nag di dund ay jafe-jafe yu metti ay at ngi nii njëkk di seen kàddu nag di saako ci kilifa yi ñu amal leen fa ay yoon rawate nag jamono ji nga xam ne ni moom lañ dugg muy jamonoy nawet ndax bu xasee ba taw rek jafe-jafe dëgg la ñuy dund rawate na ci dem dikk gi te ñu ëpp ci ñi nga xam ne ni ñoom ñooy yewoo ci bërëb ba seen loxo jotul seen ginnaaw ñaari junni lampadaire yi nga xam ne ni moom lañ seetlu ci biir dëkk bi wax saam di ci laaj seen wàll doon loo xam ne nii dana leen jitteel ngir gën a yokk lii de kaaraange seen diwaan googu